Euh, salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa maa ngi leen di nuyu di leen ziar kenn ku nekk ci yenn ci turam ak santam di njëkkee ci nuyoo bi la presse yéen ñi nga xamante ni vous avez répondu massivement à l'appel de ce Sénégalais que je suis. Euh, mais balaa may avancer je voudrais quand même ñaan leen yéen ñi nekk ci salle bi yëpp bàyyiwuma kenn ñaan ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy seetaan di ñu suivre via les réseaux sociaux ma leen di ñaan rek li lay war a suuli ñun ñëpp nañuy jógandoo taxaw def une minute de prière à la mémoire de tous nos morts. de ce projet bismillah remercie fii ma tàmbalee dafa am solo trop ci man am solo trop ci képp koo xamante ni rek bokkoon nga ak ñoom combat bi bu ñu la jàppee ba nga dugg kaso lenn kese moo la fa mën a fekk dëfal la képp koo xamante ni ci combat bi jàpp nañ la ba nga dugg kaso lii kaso bi di metti metti metti yëpp lenn kese kese kese moo la mën a defal mooy ko yow instant bi nga nekkee ci kaso bi ba ay nit mën na ñëw xool la gis la am na say morom yoo xamante ni gënoo leen juddu gënoo leen ndey gënoo leen bàyyi ëppoo leen njàng gënoo leen gëm réew mi dëddu nañu boom nañu leen dóor na ñeen bal ñu ñu daanu te ñu bari ci ñoom amaana instant bi ñuy daanu yéen a nekkoon ensemble kon li leen faat mënoon na la fa bañ a bàyyi yow loolu mooy li nga xamante ni képp ku nekkoon ci kaso bi boo ko fàttalikoo fàtte sa métit boo ko fàttalikoo fàtte kaso bi ak li muy tar-tar yëpp nañu leen ñaanal ñaanal ne nañu leen di leen ñaanal saa su ne te incha allahu rabbi wallahi seen effort du vin seen effort du vin bu dul fii rek di fële Euh, l'honorable député Cheikh Aliou Bey dafa yëgla ni dafa bëgg a yeweeku doon ñaan balaa maa tàmbali ma may ko quelque kàddu rek balaa moo dem ma bàyyi ko kàddu gi. waa asalaamaaleykum euh, donc kàddu yi ma ci yëkkati euh, du bëri mais kàddu la yoo xam ne. Euh, kàddu méttit la à chaque fois ñu nekk situation bi xool ay jeunes yi nga xam ne jàpp nañ nii ñoom en aucun moment war ñu woon dem foofu ñu nekk et en nëkkoo moment war ñu woon briser seen carrière ñu toog temps boobu liggéeyuñu ko parce que chaque jour man damay faral di wax ni euh, buñ la dénkee réew ndaw jox la ay ndaw ndéw mu ëpp ay ndaw li nga yor li nga leen yoreel mooy nga jàngal leen euh, mooy nga yar leen mooy nga yiir leen mooy nga fexe ñu am liggéey bu ñu yoree seeni waajur defar seen avenir c'est ça que le régime en place a raté maanaam il a pensé que jeunes yi ennemi lañ alors que jeunes yi ñu ay ennemi aujourd'hui dëkk yi nga xam ni yëpp jeunes yi yokku nañ fa li ñuy wax dividende démographique loolu la ñu utiliser pour egg fi ñu jëm tey tey nag Sénégal euh, comme ni ñu ko waxee euh, jeune bu mel ni Babacar ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom la bokkaloon prison bi ñu nekk nii suñu ginnaaw dañu nekk ay jeunes yoo xam ne temps bi ñu leen fa téye perte la pour Sénégal perte bu réy la dëgg la nit ñaa ngi wax chaque fois que euh, xeex la woon mais ñun APR lañ amaloon xeex on n'avait pas de combat avec un parce que état bi suñu état la. ñëpp xam nañ ni fan yi di ñëw tuuti di ngeen gis ni état bi ñun ñoo koy gérer donc état bi suñu état la on n'a jamais eu de problème dañoo jàpp dañu am ay dirigeants yi nga xam ne euh, xamuñu seen responsabilité et puis amuñu fit ñu laqatu ci ginnaaw ay takk der laqatu ci ginnaaw ay euh, justice laqatu ci ginnaaw administration pour def seen jëf yu ñaaw seen jëf yu ñaaw yooyu tey moo waral ay nit ñu bëri ñoo xamee ne bi nii seen yoon nekku ci am na ñoo xam ne dañ xeex peut-être pour sax dara mais am na ñoo xam ne seen yoon nekku ci y a tellement d'innocents tellement d'innocents en prison tellement d'innocents blessés tellement d'innocents tués sur cette histoire là ba nga xam ne yaakaar naa àddina du ko fàtte ba mukk kenn du ko mus a fàtte moo tax ñuy rendre hommage Babacar suñu teewaay fii rendre ko hommage la c'est vrai que on a un calendrier très chargé mais dañoo jàpp ni war nañ fi teew war nañ fi teew pour wax Babacar nekk na ci jeunes yi nga xamee ne bi nii tey yaakaar naa ne victoire yi ñu am yëpp loolu baax na patriote yi xam ko victoire yi ñu am Pikine yëpp et au niveau national loo xam daf ci daf ci dem du alalam du tempsam du njabootam du daram il a tout donné pour le Sénégal kooku soo koy fay danga ko war a fayee loo xamee ne bi nii xëy na nit ñi nañ ko mën a montrer en exemple mu nekk responsable d'entreprise tey am ñu xale yu bëri yoo xam ne li ñuy yóbbu di ko yóbbu seen kër wala li ñu am bu mun a takk soxna wala leneen ci ay pexeem la ak ci détermination moo ko may mu nekk nit koo xam ne dañ koy yar fi ñu ko war a yaree jox ko njàng mi ñu ko war a jox maanaam mu delloo Sénégal loo xamee ne aussi kenn xamul nu mu toll tey ndam yu ñu mës a am fii ci Pikine ba ci dernière coalition bi ñu def muy coalition wallu yeewi imagine leen jeune bu toll nii à coalition bi nga xam ne député yi waroon dem ay ancien maire ay ancien député ay lépp moom moo conduire ak ay moroomam coalition boobu ba tey ñu mun a am ay député moo tax ma jàpp nii li may wax rek mooy am nañ ay nit de valeur yoo xamee ne bi nii tey Sénégal waru leen fayee prison waru leen fayee leneen li mu wax nag lu am solo la jàpp naa ni non seulement Babacar bokk na ci jeunes yi ñu war a wane en exemple mais nekk na nit koo xam ne nit ko dëggu la nit ku am fit la lii rek ngay jàpp nit ay njabootam ay pappam ay yaayam ay bàjjanam ay waa nitam génn di yëkkati ay kàddu yoo xamee ne bi nii yow sax xamoo woon ñoom seen mbaax ak fan lañ taxawee euh, Sénégal ci ci réew mi donc kàddu yu may yëg kant seede la que ni jeune bu am taxawaay mi ngi nii jeune bu jub mi ngi nii koo xam ni ëllëg Sénégal lépp lu mu fu mu taxaw ëllëg ci responsabilité nit ñu war nañ koo nangul te def ko te te te xoolal effort yi mu ki doon def ak alal yi mu ki doon def mosu ci boole benn coow kon kenn mosu koo gis ci violence kenn mosu koo fekk. kenn mosu ko arrêté maanaam du nit yi nga xam ne da nga leen doon sax jàpp di dugal ñu naan kii war nañ fa dem donc fi mu nekkoon du place am Babacar fi nga nekkoon du sa place sa place mooy fi nga toog tey danga bokk si ñi nga xam ne ëllëg avenir u Sénégal trajectoire u Sénégal ci sa loxo lañ nekk donc kaddu yooyu laa ci bëggoon yëkkati di seede ni ñu ñu yàgg liggéey ak moom de tey fu ñu mën a yor bu yoroon réew mi tey nekk président de la république du ñu bett kon tey ñi ngi am vraiment satisfaction ci nga toog suñu wet mais di naqarlu heure yi nga fa jaar parce que seconde boo fa mus a passé heure boo fa mus a passé pertement la pour Sénégal pertement la pour Afrique pertement la pour sa génération te yaakaar naa ni ñi ko def ñoom duñ ko mus a duñ duñ ko mus a mën a fay te ñun aussi duñ la ko mus a baal baalu ñu leen li ngeen téye woon Bambacar ak ay moromam ci kaso bi te incha allah ci kanam bërutu gëpp képp ko ci mus a def. benn mbir wala benn pas boo mës a def nañ la ko topp parce que yaakaar naa ni nag jeex na ki Sénégal ñuy bàyyi ay nit ñuy jàpp ay jeunes comme ni mu leen neexee di briser seen di leen di leen tardeloo ba pare bàyyiwaat leen rek ñu ñibbi nii comme ça waxuma ñi dee de mais ñoom ñoom ñu mu tëddee war nañ leen dara te dinañ jël ñëpp ñi nga xam ne seen loxo taxawoon na ci suñ jëlee nguur gi nañ leen topp kenn par kenn li nga leen tuumaaloon li nga taxaloon seen i der dinañ ko setal te seen te dinañ leen sanctionné sanctionné yi ci war donc di sant di gërëm wasalaam Euh, merci beaucoup merci beaucoup l'honorable député Saliou donc ginnaaw loolu euh, rapidement rek ñu dem tout droit ci li nga xamante ni moom moo ñu fi dajale di sargal jigéenu Sénégal di sargal jigéenu àdduna bi yëpp ndax jàpp naa ni le 8 mars seen bës la ñu leen di ñaanal yàlla tatagal leen yàlla taxawu leen iir njaboot gi iir leen ñoom sàmm leen sàmm njaboot gi Euh, gannaaw loolu aussi may remercier la section communale de Thiaroye-sur-Mer PASTEF bi nga xamante ni ñoom ñoo ma tey ma mën a toog fii jàkkaarloo ak sénégalais di ci tudd seen coordonnateur Ablaye ñaaw su ma ko tuddee rek tudd naa ñëpp tudd naa section communale bi yëpp remercier bu baax a baax ci loolu. Euh, di remercier la presse qui n'a ménagé aucun effort ñëw ak man mais surtout di beral loxo la coordination départementale de PASTEF Pikine. di beral loxo la GPS de Pikine di beral loxo la jeunesse patriotique du Sénégal au niveau national entre parenthèses je réclame et nous réclamons la libération du coordonnateur des jeunes Ngagne Demba Touré euh, may remercier la section communale de Mbao euh, ñii ma tudd nii nag su ma leen tuddee c'est parce que temps bi ma def ci kaso bi yëpp lekkuñu naanuñu nelawuñu guddi ak bëccëg ñu ngi daw ci lu ñuy génne ci kaso bi. ma leen di remercier bu baax a baax a baax di leen jaajëfal mais euh, bu ñu nee aussi nit baax na da fekk mbokk yee ko jàppale. permettez-moi de remercier ma famille remercier ma famille waaye baalu àq ma famille baalu àq ma famille ndax gis naa seen coono sonn nañ trop comme. ni njaboot yëpp sonnee bi seen doom nekkee ci kaso bi et oui la personne qui m'a marqué la plus nam xam naa ko mais je ne m'attendais pas quand même mu egg ci niveau boobu muy sama yaay nga xam ni kenn xamu ko woon mais vraiment daan naa toog ci kaso bi di ko xool muy xeex di euh, bref, elle s'est battue, corps et pas seulement pour son fils. di remercier vraiment les détenus yi nga xamante ni man ak ñoom nekkoon nañ ci kaso bi. bëri nañ torop nag mais ma ci beral loxo waa Cap Manuel parce que man ak ñoom ñoo nekkoon tey am na ñu bëri si ñoom ñu ngi fii sama ginnaaw ñu nekk ay gor nekk ay xale yoo xamante ni boo leen daan lu ñuy wax seram day daw ndax koo ci dégg mu wax rek wax la jaar-jaaram nga xool ko comportement rek ah oui da nga naan ki warul nekk fii ils étaient tous te responsables tous des responsables jaajëfal leen ci seen dëgër laay jaajëfal aussi ñu nekkoon 100 ak yenn kaso yëpp bàyyiwuma kenn su ma limee damay juum mais nag ñuy demander képp koo xamante ni des na ci kaso bi nañ ko génne képp ku fa des nañ ko génne Bilal jaata mu ngi ci kaso bi Abdoul Aziz Goudiaby de Kër Massar mu ngi ci kaso bi Dawa Calaw mu ngi ci kaso bi Cheikh Tidiane Ka mu ngi ci kaso bi waaye suñu président Bassirou Diomaye fay mu ngi ci kaso bi suñu président Ousmane Sonko mu ngi ci kaso bi caaro sur Mer bii ma toog ñu baree baree bari ki seeni jeunes ñu ngi ci kaso bi nañu leen bàyyi ñu génn foofu seen place euh, may remercier sama patron ngeen may ma ko mooy ki may liggéeyal gis ngeen dama génn kaso ñu bëri naa man grand da nga leer grand da nga am biir est kaso nga nekkoon gis ngeen lii su ma ko melee ba ñu bari di wax dafa fekk ni sama patron sama boss daf cee liggéey liggéey bu mucc ayib ak humanisme bu jéggi dayoo atu yàlla ma nekkoo ko ci kaso bi at ma nekkoo ci kaso bi mars daaw ba mars ren sama salaire musul tardé sama salaire musul tardé un franc mësu cee manqué chaque fin du mois mon patron virait moo salaire sama njaboot di si jot di dund comme si maa ngi fa comme si maa ngi seen wet waaye yemul ci loolu chaque fin du mois gàtt-gàtt chaque ñaari weer mu jël xaalis yónnee ma ko ci kaso bi ne ma am sa argent de poche loo dundee ci kaso bi loolu moom ma permettre nekk naa ci kaso yu ba génn fa ñi sama ginnaaw mën nañ ma seede musuma naan ndoxu kaso bi musuma lekk lekk bu jóge ci kaso bi li may lekk yëpp sama kër lay jógee wala fin en ville ma commandé ko ci réseau yi mu ñëw fekk si ma ndax sama patron chaque weer ñaari weer mu jël alal yónnee ma ni ma sa argent poche donc li ma fa nekk yëpp sama xel dafa doon dal ndax sama njaboot xam naa ni ñu ngi ci jàmm ñu ngi lekk ils mangent à leur faim kooku aw ma fayam te balaa lii yëpp ba ñu ma jàppee li mu njëkk def mooy dafa taxaw jël avocat fay ko avocat bi dem ba xam ni lii dépassé na ko moom mbirum état la le boss m'appelle pour me diir Babacar lii dafa dépassé avocat yi muñal tay la tax ce n'est que de la politique et je ne te laisserai maa ngi sa ginnaaw aw ma fayam sama soxna aw ma fayam dina si ñëw ci kanam euh, di beral loxo le collectif des parents des détenus yaay yooyu soxna yooyu papa yooyu mag yooyu rakk yooyu en réalité ñooñu la ñu tëjoon ñun kenn tëjuñu woon ñoom la tëjoon ñooñu la ñu tëjoon ci kaso bi ñun kenn tëjuñu woon kenn tëjuñu woon parce que lu mu dee néew néew néew néew bu ñu bëggee lekk lekk bu ñu bëggee waxtaan waxtaan naan ataaya kafre entre nous mais ñii ma lim kenn nelawu ci du soxna bu nelaw ndax jëkkëram mu ci kaso bi du yaay bu nelaw ndax doomam mu ci kaso bi du mag du rak kon ñooñu lañu tëjoon ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal yàlla di leen wax ni seen effort ak seen coono jeex na ndax incha allahu rabbi après ces élections seen jàmm seen seen seen seen coono jeex. di remercier waa chemin de la libération chemin de la libération bi nga xamante ni je pense que ñoom Fatima nga ñoo ko dirigé woon ñooñu seen liggéey mucc na ayib seen liggéey ak seen taxawu détenu yi ñun ñu nekkoon ci kaso bi gis nañu ko. seen loxo mësul jóg ci ñun chaque semaine que je fais loo xalaat ci lekk loo xalaat ci naan loo xalaat ci dund chemin de la libération euh, taxañ nañ ko dugal ko ci kaso yi moo xam ay meew la ay suukar la ay kafe la moo xam xaalis la lépp lu ñu mënti soxla rek ñii ma wax nii nii nii nga xamante ni ay ñoom Fatima Mbengue ñoo ci nekkoon ay ñoom euh, je pense que ñoom Salimata Dieng ñoom ñëpp sonn nañu waaye taayuwuñu benn yoon ci xetali détenu yi ci jàppale détenu yi dañoo dem ba ñi nekkoon ci kaso bi te nekkuñu ay détenu politique dañu leen bénéficier wu ci li nga xamante ni ñoom ñu ko doon dugal pour ñun ñu remercier bu baax a baax jaajëfal leen euh, di remercier aussi les jeunes de l'opposition parce que aussi yaa am na ñu bëri si ñoom des jeunes de l'autre d'autres partis qui n'ont ménagé aucun effort ñëw sees ñu ñëw nemmeekuñu ñëw xool ci lu ñu nekk amuñu seen fay waaye ma baral loxo le président Ousmane Sonko. ma beral loxo le président Ousmane Sonko dama koy wax parce que bu bu ñu defee tuuti histoire man sama engagement ci parti bi ku ma xam di ko comprendre ku ko xam di ko comprendre su ma nekkul ndaw bi njëkk ci parti bi maay ñaareel bi njëkk ci parti bi pour ne pas dire maay ndaw bi njëkk ci parti bi en 2014. j'étais étudiant xaw ma woon luy politique mësuma politique ça ne m'a jamais intéressé mais nag j'ai toujours été engagé pour ma commune ma société ndax à l'époque j'étais même syndicaliste à l'université le président Ousmane Sonko m'a repéré on est entré en contact ñu toog ñu waxtaan jour bi ñu waxtaanee ba pare ma xam xamal ko ni ko bis ni ki tey sa tànk bi foo ko teg ci projet bii nga ma jaay ma teg ko sama bos te jamono boobu noonu privilège amul kenn xalaat man xalaatuma ko parce que j'étais jeune xale laa woon xalaatuma woon sax ay privilège li ma bëgg wax mooy tey su ma nekkee om politique bii ma doon ba toog fii presse bi tiim ma ay nit wër ma yàlla ak jëmmi Ousmane Sonko la le président Ousmane Sonko a de moi il a fait de moi l'homme politique que je suis aujourd'hui moo ma def ki ma doon tey waaye dama toog ci kaso bi am ku ñëw ni ma président nee na daf laa soxla dans son cabinet comme conseil spécial chargé de la jeunesse mu ne nee na ma laaj la ci sa xalaat ma ne ko boo demee wax le président Ousmane Sonko ne ko man Babacar Ndiaye ma ne lépp lu mu na ma ci man jox naa ko feu vert waaye li ma touché ci mbir mi mooy jamono bi muy renouveler sa confiance devant le monde entier en ma personne jete en détention j'étais un prisonnier sama xam-xam mënul woon génn sama doole mënul génn sama compétence mënul génn jeté égal à zéro, cet homme a renouvelé sa confiance en ma personne pour m'intégrer dans son cabinet en tant que son conseil spécial. loolu du lu ndaw awma boobu fay mënuma ko fay ci loolu sans compter suñu jaar-jaar ba fi ñuy egsi euh, wàccoon ak askanu Sénégal Ousmane Sonko wàccoon na ak askanu Sénégal j'ai toujours dit xeex ak Ousmane Sonko ci ay principe ci projet bi xeexak ak yàlla la xeex ak yàlla la doo ci am ndam ma am contentement bu jéggi dayoo dina jaaxal ñu bari nag li may bëgg a wax ndax sama nekk kaso daf ci am loo xamante ni dama cee kontaan suba suba suba bu ma yeewoon ne ma ndax pare nga pour delluwaat ci condition yii nii pare naa pour delluwaat pare naa pour delluwaat ci condition yii nii li tax ma wax ko mooy dafa ma permettre ma découvrir euh, ñaari nit yoo xamante ni ils ont marqué ma vie durant toute l'année ils ont déteint sur ma ma nekkoon ci seen keppaar 24 sur 24 durant toute l'année mars 2023 ba mars 2024 ba ni may génnee ma nekk ci seen keppaar fu ñu toog teg ma seen wet foo ñu gis ñun ñett ñooy toog ñu nekk ci sama nopp yi di ma jàngal lu bari ma gis ci ñoom ay nit yu extraordinaire boobu jour bi may génn kenn ki daf ma ne Babacar ma ne ko naam man ma j'espère que boo génnee di nga dal ma ne ko mënatuma mel ni ma meloon ndax li nga def ci man fay na lépp ci man fay na lépp luy safara ci man je veux parler de Bassirou Diomaye Faye je parler de Cheikh Oumar Diagne Sénégal Sénégal laay waxal gis ngeen ñaari nit yii billaahi wallaahi wa taalaahi je parle de leur humanité pas li ñu doon de leur humanité valeur seen xam-xam ñaar ñii bu leen Sénégal jariñoowul jariñoowul non Sénégal dina manqué lu rëy ci histoire am Sénégal bu jariñoowul Cheikh Oumar Diagne bu jariñoowul Bassirou Diomaye fay Sénégal dina ñàkk lu baree baree bari ci histoire am dina raté lu baree baree bari ci histoire am c'est des hommes de valeur épris épris de justice ñun def ci man lu baree bari man mi demoon ba jàpp ni xam naa su ma toogee samay morom di ngand ngandalu ba ma tàmbalee toog seen biir damay jékki-jékki ma ne ko Cheikh ma man ma naam ma ne ko am naa problème man je pense que damay gunge Pastef ba mu gañee bu gañe leen kese laa leen ñaan may leen ma bourse ma dem jàngi ndax man je ko rends xaw ma dara ndekete je me rends compte que ndekete xaw ma dara et que je je ne suis ci xam-xamu àdduna waaye surtout ci alxuraan ci diine Cheikh Oumar Diagne moom ma dalal ci kaso bi alif lam tey je lis le moom ma dalal ci kaso bi commencé ma alif ba ta jiim dama ko expliqué ci foofu laa ko dalee foofu tey su ma tëjee téere bi dama koy liir mu jël ay saar yoo xamante ne ay saaru ñaan la yu am solo jox ma ko pour vous montrer la dimension de l'homme am xam-xam yomb na waaye être généreux ci sa xam-xam dafa jafe Cheikh Oumar Diagne il est généreux ci xam-xamam c'est un monument booy wër booy wër nag ku jub ku droit ku juste ku jub ku juste ku droit jàppal Bassirou Diomaye Faye ma jox leen benn anecdote bu ndaw anecdote bu ndaw dama dugg ci kaso bi une semaine deux semaines Bassirou Diomaye seetsi ma bi ma seetse ci palwaar yi deux semaines après ñu jàpp ko moom indi ko ma koy tooñ naan kaan yow moom dañoo bokk destin gis naa ni yaa gën a gore ñëpp ñëpp dañoo yem ci parwaar yi yow nga ñëw dugg bu ci biir fi ñuy waxtaanee ñu oomo daal yi ne ma am na benn colis bu ñëw sa tur moo ci nekk ak turu Bassirou Diomaye ñu dugal koli bi mu nekk ay meew yu bëri ay meew ay sukkar affaire yu bëree bëree bëri ñu dem ci néegam mu ne ma seddale ko ma ne ko d'accord automatiquement rek ma commencé woo jeunes yi fa nekkoon détenu yi politique yi ne leen kaay ñu séddoo Bassirou Diomaye xool ma xool ma xool ma ne ma Babacar ma ko naam mu ne ma taxawal ma ne ko li xew mu ma taxawal looy def nii ma ko damay séddale moo ma taxawal ma taxaw Bassirou Diomaye dem jël big ak feuille rëdd benn tableau ni ma tekkil mbuus yëpp ma tekki ni ko pour lan la mun na ma noteel ma article bu ci nekk ñaata lañ ci am nga remplir tableau bi ba mu fees dell ma ne ko bas lii su ma ko naree def fi la ñuy fanaan mun a ma def ko ma jël sama temps di bind di bind ba naa une heure de temps may noté ndax dafa bari woon ma pare mu ne ma ñaata détenu politique ñoo fi ne ma wax ko mu ma néeg bu nekk ñaata la am ma wax ko mënu ma bindal ma bind mun ma kaa ñu def la division de façon proportionnelle selon nombre bu nekk ci néegi ñu def ñu pare mënu ma xam lu waral coono bi yëpp ma ne ko lu ko waral mënu ma gëm naa ni bés bu ñu génnee on doit être en mesure wax ñi dugaloon lii lañu ñu dugaloon naka lañ ko séddoowee te pour ñu mën leen wax pour ñu mën leen wax lii naka lañ ko séddowee dañ ko war a bind mu leer am traçabilité mu jaar ci yoon désormais lépp lu fi ñëw comme colis boo koy séddale def ko comme ni mu ko defee soo paree jëlal feuille bi nga ranger ko bu ñuy génn ñu génn wàllu dossier boobu noonu képp ku fi mës a dugal colis ñu jëbal ko ne ko li nga ñuy joxoon kat nii lañ ko séddalee jub weesuwul loolu jub weesuwul loolu parce que man jàppoon naa ne colis la rek dama ko doon jël rek tasaare ko ñëpp am ci mais nii la ko seddalee ñu dem ba mu yàgg amaat beneen colis ma ne ko président vraiment damaa sonn li nga ma def dafa metti ma dem oowi Vito Ousmane Diouf mu ngi sama ginnaaw ma ne ko kaay mu ñëw ma yóbbu ko sama néeg fa ma Bassirou Diomaye jaarale woon ci colis bu njëkk ba ma jaarale ko moom foofu ma ne ko jëlal fooy mu jël defal mu def mu def ba pare ma ne ko séddaleel parce que j'ai appris que la ma wax. lu am njariñ la kon je répète Sénégal bu ñu jariñewul Bassirou Diomaye fay def erreur Ousmane Sonko juumul il n'a pas euh, il n'a pas eu tort sur le choix de Bassirou Diomaye fay moo ñu ko gën a xam ñun ñëpp juumul te man mi def ak moom at ci kaso bi xam la personne dans son entièreté Sonko juumul un homme honnête un homme juste un homme pondéré un homme serein un homme droit qui n'a pas froid aux mooy Bassirou Diomaye Faye donc pour dire que rek sama dugg kaso amoon na ay hauts waaye amoon na ay bas di sant yàlla bu baax a baax mais nag les sénégalais euh, Bassirou Diomaye du mois le président Macky Sall a fait beaucoup de mal. le régime du président Macky Sall a fait beaucoup de mal. Madame la ministre Aïssata Tall Sall yow lay waxal droit dans les yeux au Sénégal on a torturé les détenus politiques am na torture am na Sénégal madame la ministre torture am na Sénégal madame la ministre ñun on l'a vu gis ñu ko dund monsieur président torture am na def nañ ko détenu politique yi gis nañ ñi ko dund entre parenthèse may masawu Pape Abdoulaye Touré di ko masawu baax a baax a baax a baax a baax su may xool vidéo am ay jooy moom doon jàpp ñun dañoo toog ci kaso bi di gis ñuy dugal détenu yi bu ñuy ñëw ñu bari si ñoom tànk bu damm la ñuy dugg see ñii ay bopp ñu band la lañuy duggu see ñii ay visage défiguré la ñuy dugg see ku ci toog nga laaj ko mu ne man mu ne la dañ maa dóor ba muy bëgg a dee am na si kenn koo xamante ni dinaa ko wax te ñi ma toogal duñu ma bàyyi ma fen ñu koy wax Mansour Mansour la tudd Mansour Touré kooku ñu bari xaw nañoo jooy ci kaawam bi mu duggee ci kaso bi non seulement tànk yu damm yu damm dafa duggee ay blessure la fa duggee mais ndeysaan xel bu dem la fa duggee lu waral xel bu dem bi il a été ndax bi ko euh, force de di jàppee ak ay nervi non dañ kaa dóora dóora dóor ba waaj yi am traumatisme xel mi dem tey Mansour bu ngeen toogee nga ne ko Mansour yaa rey kii mu ne la maa ko rey boo ko ne Mansour yaa taal fii mu ne la maa ko taal loo ko wax mu ne la waaw boo ko ne lu tax mu ne dañu maa dóor ma ne ma waxal waaw loo ko wax mu ne waaw tellement dafa dem ba xel mi dem nekk na ci kaso bi mais c'était un fou bu fa nekkoon dof la woon son cas avait écœuré beaucoup de monde beaucoup de monde noonu lañ ko téye ak ay damb dammam ak ay blessuram téye ko fa téye ko fa ba mu wér ci kaso bi téye ko fa téye ko fa ba mu génnee kaso bi ak xelam bu dem donc mun ma toog <laughs> di xool ministre bi naan Sénégal amul torture ku ko def ñu tëj la Sénégal am na torture defuñu ma ko man waaye gis naa ku ñu ko def gisaat keneen ak keneen ak keneen te ñii sama ginnaaw du ma bàyyi ma fen samay nawle la ñu ma fen seen kanam waaye jeex na ba pare mais fale ñu wax ko ñu dégg ko c'est important ma ciy remercier entre parenthèses l'administration pénitentiaire de Cap Manuel di ko commencé ci le chef de cour ba fa nekkoon à l'époque mu nekk une personne d'une humanité extraordinaire waaye di remercier équipe bi mu nekkal yépp garde yépp ba ci kaw ba ci suuf Cap Manuel ñi fa nekk c'est des gens dignes c'est des gardes qui sont dignes garde yi ils sont dignes c'est des humains ay nit lañu ils sont professionnels amul benn métit amul benn métit bu ñu mës a yëkkati teg ci doomu aadama nekk na fa ak ñoom at musuma gis ñu ko ci kaddu bu ñaaw saaga sax saaga teg ci kaw détenu musuma ko gis Cap Manuel c'est des gens dignes waaye nag ci kaw loolu may dénoncer may dénoncer les conditions malsaines de nos amis yi nekkoon à 100 ñooñu dañoo sonn te ña fa des dañoo war a génne dañoo war a génne ful seen place Macky Sall a fait beaucoup de mal beaucoup de mal moi qui vous parle damaa dugg kaso trois quatre jours sama soxna ñëw ne ma papa je suis enceinte ma ko nga ne mu ne dama ëmb. trois jours laa def ci kaso bi mu ñëw wax ma loolu automatiquement sama xel bi commencé daw ndax xamoon naa ne man mi di dugg dugg kii ñëw wax ma lii benn affaire la ma ne ko tu es mu ne ma waaw ma ne ko baax na gëmal yàlla lii léegi mu jeex question weer la rek ay ñaar ñetti weer mu jeex mu dem bi mu demee gudd yooyu mën naa ne euh, je dormais plus nelawtuma parce que xale la wane na lor mu ngi ci kër bu ci këram nekkul cette pression cette angoisse chaque jour ma woo sama yaay laaj ko naka la soxna si def parce que maa ngi doon ragal mu def fausse couche je pensais pas qu'elle allait tenir góomu woon ni dina tenir grossesse bi moo tax man mënatuma woon nelaw c'était moom premier c'est mon premier fils donc on peut imaginer ni ma ko doon tundee chaque instant maa ngi ragal ñu ne ma def na fausse couche benn jour parce que moom elle venait tous les vendredis me voir benn jour may xëy woo suma assistant ne ko euh, madame suba préparé ko mu ñëw mun ma noo du mën a ñëw pour telle raison ma ne ko tant newuloo ma am na problème mu santé wala am na problème mu sécurité chaque vendredi sama soxna na ñëw ci kaso bi ma xool ko je n'ai que ces dix minutes par semaine pour xam suivre sa grossesse xam moom nu mel ak naka la nekkee ak naka lay doxee bis ni ki tey na me dis plus mënul ñëw chaque vendredi indi ko ma xool ko je n'ai que ces vingt minutes pour la regarder je n'ai que ces vingt minutes pour dalal xelam je que ces vingt minutes pour xool ko mu xool ma ma xam ndax mu ngi ci jàmm na me dis plus que mënul ñëw depuis lors chaque vendredi madame venez me voir noonu laa ko dundee ak moom muy évoluer di évoluer di évoluer ba nit ñi ma oowee ne ma elle est en train d'accoucher ah oui sama àdduna tukki wat jour boobu noonu Macky Sall a fait beaucoup de mal il a fait ba ni mu muccee am doom nelawuma gëwuma ko woon ba nit ñi ma koy indalee ci kaso bi ma téye ko samay loxo je n'y croyais pas elle est très brave yàlla ko yàlla fay elle est très brave elle est très brave yàlla na ko yàlla fay Macky Sall a fait beaucoup de mal et tout le temps je disais aux gars leen man j'ai un problème Macky Sall mayuñu dara amul benn seconde boo xamante ni Macky Sall rus na mu téye loxoom mu arrière Macky Sall ñu dara dara dara dara dara lu ñu ko mën a rusee ëllëg tey ñun bu ñu demee ba jël nguur gi. ana ci lan lañ mën a sukkandiku pour ne noonoo non nañ ko bàyyi mu dem lan fan lañ mën a sukkandiku rek ba ne nañ mag bàyyi Macky Sall mu dem fan. koo xamante ni saa bu jekkoo dóor na ba ñëpp xam ne dóor na Macky Sall a tué avec son régime rey nañu tëj nañu torturé nañu exilé nañu euh, gaañ nañu. tere nañu ay nit ñu jóge bitim réew ñibbisi set seeni mbokk bépp pouvoir boo xamante ni nguur dénk na ko Macky Sall ak régime am na ko su ñun ba mu jeex tak tak tak tak tak moo tax bi ma dégg ñu naan ay si d'amnistie arrêté dama jàpp arrêté dama jàpp et j'ai toujours dit j'ai toujours di ma ne président Macky Sall demul élection je prends en témoin ngañ Gueye mi nekk sama ginnaaw saa bu ñu mësee toog ma ne leen kii demul élection xaajul dem élection waxul lu jëm ci élection boobu c'était ay deux mois trois mois avant élection yi les gens disaient non day dem élection man leen demul élection fan laa ko tegoon mooy Macky Sall toutes les situation l'arrangent toutes les situations l'arrangent sauf benn situation benn muy la tenue d'élections libres et transparentes lii kese kese moo di ko arrangé wul le président Macky Sall report am par consensus arrangé na ko report am parce que il y a le chaos le pays s'est embrasé arrangé na ko armée jël nguur gi arrangé na ko moo ko gënal ñu ñu jël ko waaye lenn kese moo ko arrangé wul muy élection am transparente jaar fi mu war a jaar te li ci ginnaawam toll na noo xamante ni si jéeya def na loo xam ne ci musiba moom ak ñoñam Macky Sall na dormira jamais jamais jamais jamais tant que amul assurance bu koy wan ni mën ngaa ñibbi tranquille ak say ñoñ waaye nag ci kaw loolu ba koy xamal lu wër ci kaw loolu may wax ni Macky Sall ak ñi mu àndal vous avez intérêt à organiser des élections libre et transparentes vous avez intérêt pourquoi parce que suñu sacrifice du vin ñu ci kaso yi pour rien deewuñu pour rien gaayuwuñu pour rien exilé wuñu pour rien Sénégal day changer Sénégal dafay soppeeku te li koy soppi dañ cee am wàll te dañ koy jël dañ cee am wàll te dañ koy jël je me rappelle bi ñu may jàpp maa ngi toog sama bureau section de recherche bu Colobane ñëw ne ma monsieur on a besoin de toi présent enquête man ak ñoom dem bi ñu demee le gars l'enquêteur ma di yow lan nga ci biir Pastef ma ne ko man je suis le coordonnateur adjoint au niveau national des jeunes l'enquêteur ma kon yow le 16 bi passé li fi am yépp yow yaa ko commandité ma ne ko li nga wax foo ko teg nekk njiitu jeunes yi tax na ma ko mandatoo mun ne ma waaw parce que am na vidéo boo xam te ni yaa ko def la nga def la nga wax loolu ñu def ma ne ko tegal vidéo bi mu teg vidéo bi ma ne ko vidéo bi kañ la ma ne ko lii kañ la mu ne ma lii c'est le 16 ma ne ko yow tey ñu ngi ci ban jour mu ne ma tey le 20 un mois après ma ne ko donc damaa génn wax un mois après ñu doo ko def li ma wax ma ne waaw ma ne ko xel nanguwul loolu xel nanguwu ko parce que mënoo ma xool ay caméra tiim ma may rey nit di commettre un crime ñëpp di ma gis la monde entier may rey nit ñu xooloo ma rey ba pare ñu bàyyi ma ma dem sama yoon weer après ñëw na man yaa yor yaa yoon nit xel nanguwul loolu ma ne ko déedéet mënuma commettre crime ngeen may xool au vi au si au mois après ngeen bëgg ma jàpp ndax crime boobu Dites plutôt que vous voulez me neutraliser, vous voulez me briser, vous voulez me mettre en prison parce que je ne vous arrange pas. Je ne vous arrange pas. Mais qu'est-ce que le gars me dit Le, gars me dit Babacar Makonna, en réalité, dëgg la lay wax. Moi, je n'ai rien contre toi. J'ai reçu des instructions. Il faut que je me procureur. Comme ça. Il faut que je me procureur. Je allons-y. Nous sommes devant le juge d'instruction. le juge ma dit monsieur Ndiaye vidéo yi patati patata yaa ko def yaa ko wax ma truc man nag man li ma wax yaa ngi koy liir yaa ngi koy déglu et j'ai posé des conditions je dise si bés bu lii amee nañ taxawee nii dëgguma dëgguma fenn ma ne gën leen rey gën leen taal dégguma wax ko ñu werante man nag moom déglu moom fi mu mujjee déglu fi mu mujjee de moom le juge mu ne ma écoute je contre toi le parquet a demandé qu'on t'arrête cash le mandat de dépôt est obligatoire le procureur a visé des articles yoo xamante ni mënuma ci dara faw nga dem faw nga dem comme ça ma ne ko monsieur le juge boobu sama sama avocat mu ngi toog ma ne ko monsieur le juge suma la comprendre kon yow sa jugement sa jugement yow amoo ci mainmise amoo ci pouvoir mënuma si des fois le parquet doit motiver dûment réquisitoire am waaye dëgg lu ci teg mu ne ma waaye man man duma dem à l'encontre du parquet demande at tes avocats ñu dem au niveau du parquet ñu batailler foofu demande à tes dal d'aller sa batailler au niveau du parquet parce que man du ma dem à l'encontre du parquet waaw loolu lu muy teg loolu mooy man du ma dem à l'encontre de li Macky Sall bëgg ndax Macky Sall et le parquet C'est son ministre qui est le patron du procureur. kon un juge bu toogee ne ma je n'irai pas à l'encontre du parquet loolu mooy li état bëgg laay def mënuma ci dara et c'est dommage les juges du siège sont sont libres c'est dommage nga def ñu defal la mandat de dépôt nga dem kaso nga bind sa demande de liberté provisoire juge bi na la accordé naa la ko procureur mu ne accordé ma ko ñu ne ko da ngay toog ci kaso bi mais le procureur c'est toujours Macky Sall donc Macky Sall ci paleem mooy tànn ku muy tëj kan la koy tëj naka la koy tëjee kañ la koy bàyyi naka la koy bàyyee ci ça la vérité lii mooy suñu système judiciaire le parquet a un pouvoir exorbitant sur les juges le parquet a un série d'articles boo xamante ni benn ba mu ci visé on dit que le juge est tenu le parquet a ce qu'on appelle l'opportunité de la poursuite maanaam moom mooy tànn est-ce que dinaa poursuivre wala duma poursuivre waaye ñu ne ba léegi parquet boobu noonu même bu la juge bàyyee moom bu nanguwul doo dem ñu ne parquet boobu noonu même bu sa instruction bu ñu ko tëjee ba tënk ko moom moo war a organiser ce procès te pour mu organiser ko amul délai heure bu ko neex la koy organiser on a vu l'exemple de Fadilou Keïta que je salue de passage dem na ba instruction jeex ba ñu tëj ko. après ay demande RP yu bari ñu bañ ko ko may la moo desoon organiser procès le parquet a refusé d'organiser la procès te amul délai kenn tënku ko mais ce qui veut dire que Sénégal parquet mooy bu mooy bu mi et qui dit parquet dit le président de la République Macky Sall Ibrahima ñëpp a ci yem le système judiciaire et pourri notre système judiciaire est pourri on ne peut pas avoir un parquet buy tëj di tëji nu mu ko neexee à sa teg ko ci teeyaayu bakkanam wala ci bëgg-bëgg nguur notre système judiciaire est pourri jusqu'à la moelle et le système judiciaire demande des réformes foncières un juge qui te dit su ma la mayee liberté provisoire procureur day bañ te bu bañee da ngay dellu kaso bu bañee da ngay dellu kaso c'est anormal c'est anormal lii moo waral plus de mille et quelques nekk ci kaso yi pendant deux ans pendant un an kenn mënu leen libéré ndax le président jox na instruction yu leer nañ maanaam ñii nii nii nii seen dossier bu ko kenn laal tant ma man waxuma laal leen. on a vu la preuve bi ñu bëggee bàyyi qu'est-ce qu'ils ont fait ni ñu jàppee woon en masse noonu la ñu bàyyee en masse parce que ndigal li yëkkati nañ ko parce que ndigal bi yëkkati nañ ko ça doit changer ça doit changer dinaa yuuxu parce que ça me fend le cœur. on a bousillé l'avenir de tant de jeunes l'avenir de tant de jeunes on l'a bousillé ci ñàkk fayda ci bëgg-bëgg benn doomu aadama ci bànneexu benn doomu aadama ci bëgg nguuru benn doomu aadama ci bañ a demu benn doomu aadama au nom de quoi on va nous dire calmez-vous on va nous dire dal leen on va nous dire bu leen génn bu leen xuloo mais à un c'est écœurant c'est écœurant le Sénégal mérite des changements profonds des réformes profondes tout va mal au Sénégal tout va mal au Sénégal rien ne va mais incha allahu rabbi damay demander à tous les Sénégalais foofu lay jeexale à toute la jeunesse particulièrement mobilisez-vous mobilisez-vous autant que vous pouvez mobilisez-vous autant que vous pouvez ñi mën a jël congé jël leen congé ñu mën a bàyyi seen liggéey pour le moment tëj leen seen liggéey parce que jar na ko le mal est très profond te saabu bu gaal gi di suux ñun ñoo koy yëg ñun ñoo koy yëg lii wane na ko ñun ñoo nekkoon ci kaso yi pendant ay at ñun la ñu torturé ñun la ñu ñun la ñu rey Sénégal bu doxalee ñun ñoo koy yëg jël leen congé génn leen bureau yi gën leen garage s'il le faut c'est dix jours de campagne mobilisez-vous ne ménagez aucun effort aucun effort parce que ce système doit déguerpir ce système doit dégager et ils vont dégager ils vont dégager lu ngeen am ci alal ci kattan ci doole xeeb leen ko weeru koor la du weeru koor bu mu ñu sonal nañu battre campagne allons voir les sénégalais allons voir les sénégalais sénégalais sonn nañu xiif nañu mar nañu allons les voir les effigies de bassiru Diomaye fay na na na lëmbe Sénégal en tout cas man sa mangage Pikine gi ma dëkk Pikine gi ma dëkk man Babacar Ndiaye Pikine gi ma dëkk fépp foo dugg ci gox goxaan je prends cet engagement fépp foo dugg couleuru Bassirou Diomaye fay effigie Bassirou Diomaye Faye suñu candidat dina lëmbe Pikine yëpp dina lëmbe Pikine yëpp mën nañ ko ndax defoon nañ ko les élections législatives ñun ndaw ñu ñoo ko yoroon appliqué ñoo ko dirigé on a gagné les communes tous les centres de donc pour vous dire que euh, incha allahu rabbi la jeunesse sénégalaise particulièrement jeunesse bi wootee le projet de PASTEF je répète mobilisez-vous mobilisez-vous autant que vous pouvez on n'a que dix jours dix jours pour sëgg for nguur gi le changement est là dañuy sëgg rek for ko dañuy sëgg rek for ko il est là devant nous il est là devant nous bu leen kenn gëm lu ne mënul et les organisateurs je le répète ils ont intérêt à nous assurer une très bonne marche des élections ils ont intérêt et qu'ils se tiennent euh, avertis suñuy sacrifice du du du ndox saay le régime de Macky Sall dafay dem abal ñu bu soobe suñu borom jërë ngeen jëf. bureau Mamadou Seck man ak moom a ànd lii mu wax ne loolu la tontu juge Mamadou Seck loolu la loolu la wax sama kanam def naa onze mois rëbës onze mois def naa ko rëbës ñii jóge jóge rëbës dem kam manuel foofu lañ ma fekk lépp lu mu wax dëgg la lu amul seede baaxul man maa seede loolu lekk bi njëkk a ñëw bi mu ñu fekkee section de recherche ak li muy bari yëpp yëpp yëpp yëpp yi jógee brigade euh, woo ko am da nga leen koo jox ne leen jël leen lépp xale yi toog nañ trois jours lekkuñu trois jours lekkuñu d'accord man ak yow torturé wuñ ñu de mais dañoo torturé xale yi dama leen a gis dañ leen a dóor a dóor a dóor a dóor a nga xam ne am na ñoo xam ne mënuñu toog am na ñoo xam ne mënuñu tëdd loolu mën naa ko seede ma ne nag li tax président Ousmane Sonko def la son conseil spécial waxatu dëgg nga j'étais devant toi devant du Seck bi nga koy tontu loolu bi nga koy tontu loolu maa ngi taxaw loo amul seede baaxul projet bi du xale yi rek xale yi bu ñuy xeex di jël mbëkk bi xale yi bu ñuy xeex pour changer lii fi nekk pour ñun la pour ñun ñu noppalu la c'est pour que pour ñun ñu noppalu looloo tax maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm jërëjëf monsieur le conseiller daam lu ma fàtte euh, ngeen may ma ngeen may ma ngeen may ma ma jég ngeen ngeen ngeen jégal ma euh, fàttew fàtte euh, mënuma sax fàtte la mais sama xel dafa dem ci ni am na koo xamante ni su ma tuddul turam rek du baax ci man ci man ci man la wax ci man du baax ci man pas ci moom waaye du baax ci man ndax daf ma jur ba pare nekk sama xarit c'est ça la jur ba pare waaye nekk sama xarit sama xarit muy sam papa euh, sam papa sam sama xarit la sama xarit la ma koy ñaanal yàlla bu baax a baax di ko jégalu di ko masa bu baax a baax ndax sonn na da sonn na trop muy moom muy sama yaay mère muy toute la famille bëgguma lim damay juum toute la famille mais ñu xam ne rek sama wajur bu sonn bu sonn ci man la ma koy ñaanal yàlla di ñaan ngay ñaanal ko yàlla yàlla ar ko sàmm ko bàyyi ko suñu kanam lu yàgg yàgg yàgg jërë ngeen jëf. merci merci donc euh, gars yi donc première partie bi loolu la euh, donc Babacar wax na li mu ñu bëggoon na wax après am euh, pour la partie française dina def ay inter des question ciblées mu def ak yéen ay ay ITV. Euh, mu kii ko ah waaw noonu noonu lay demee noonu lay demee loolu lay expliquer nii donc en fait li ñu bëggoon wax lépp wax na ko en wolof maintenant en français pour les besoins de vos éditions différentes éditions dina wàcc après ngeen jël ko en interview ah mais mënuñoo dem te joxuñu waa Cap Manuel kenn mooy wax Vito Touré dina wax pour deux minutes mais balaa boobu dañuy tamit euh, sànq ñoo ngi ko doon euh, euh, présenté fekk ñëwul woon muy le doyen Moustapha Sarré qui est national chargé de la formation de PASTEF directeur de l'école du partie Daare Cheikh Anta bu PASTEF Moustapha Sarré qui encore le coordonnateur de PASTEF Mbao si nga xam ne fa la Babacar bokk ñoo ngi tamit rafetlu bu baax teewaayu Euh, le coordinateur départemental de Magui Pastef le doyen Thiéfatim Naël qui est là moom it mu ñëw euh, assister ci Babacar euh, donc vous avez vu que tout le département ñëw nañu aux côtés de de Babacar Ndiaye donc sans plus dañuy bàyyi Vito Touré mu wax pour deux minutes nest salaamaaleykum waa département de Pikine ñu ngi commencé suñu nuyoo voilà ñu ngi commencé suñu nuyoo ci monsieur le maire euh, euh, Aline Bey bu fi nekkoon tout à l'heure di ci teg euh, suñu mag ñu baax ñi Père Sare laa ci gën a xàmmee mais effectivement du nuyu jeunesse su Pikine yëpp. di am aussi contentement bu rëy pour teew fi et aussi jël fi ay kàddu def ay témoignages ci suñu grand boo xamante ne tey jii vraiment euh, moo nekkoon suñu lëpp te yàgg na doon suñu lëpp avant ñuy dem ci prison bi je veux nommer Babacar Ndiaye tey amaana euh, fii la ñu mën a waxee ci moom je parle au nom de tous ex détenus de Cap Manuel ñi fi toog mooy ñoom Ngagne Demba Guèye de Pikine ñoom Modou Touré ñoom Pape Fara ñoom Ibrahima Diagne et tout euh, di ñëw rek comme nuñ koy baaxoo di def Babacar bon du tey lañ ko xam euh, du bari ci démb lañ ko xam te du ci ay weer lañ ko xam mais yàgg na biñ ko xamee parce que moom ak Ibrahima Thiam bu toog na ñoom ñoo ñu dalal ci GPS national mais depuis bu ñu commencé liggéey ba tey wax dëgg fa yàlla njàmbaar la gis ci moom nit ku jàmbaar nit ku dëggu nit ku am fulla ak fayda mais aussi nit koo xamante ne dafa am yëg-yëg ak ñëwantal ci moroomam doomu aadama te yaakaar naa ne nit soo amee. je pense que man première jour bi ma ñëwee Cap Manuel xaw ma woon sax kuy Cap Manuel déjà parce que j'ai jamais fait la prison comme la plupart des patriotes mosu ñoo def prison mais je suis arrivé le jeudi soir bi ma ñëwee jeudi soir euh, vraiment xaw ma fa woon dara en tout cas xaw ma fa woon dara. et je me toujours dans la tête que ak nu mu manti demee je vais me débrouiller par la suite le benn gars mu gis sama bracelet bi ma takk mu ne ma yow Pastef nga bokk ma ne ko waa mu ne pourtant de seen grand yi ñu ngi fi joomaay ak euh, Babacar Ndiaye ma ne waa effectivement xam naa ne ñu ngi fi mais man xaw ma fan la ñu nekk euh, mu ne ma suba dinaa la fa yóbbu le lendemain bi ma demee tôt le matin. daf ma gis rek mu jóg taxaw Babacar Ndiaye ah daf ma gis rek mu jóg taxaw mu jëw seere ma ci loxoom moom moo frère lan ngay def fii ma ne ko ah gis nga nu muy deme de nii la demee gars yi de jël si nañ ma loo def mu ne ma kaay avant tout parce que xam na ne déjà chambre une la rentrée te chambre une moom dafa tar gars yi xam nañ ko chambre une laa rentrée xam naa ne kii nii apparemment apparemment nelawul bu baax wala it est-ce que ça la a bien mangé mais je vous assure ci saas bi la jóg mu defaral ma ndékki en tant que le grand frère mu defaral ma ndékki mu ne ma toogal nga ndékki ma toog ma ndékki mu dalal sama xel mu ne ma en tout cas xeex bu ñu nekkee nii am nañ suñuy morom yu décédé ko nañ ci am nañ suñu ñoo morom ñoo xamante ne tey jii feebar nañ feebar boo xamante ne ñu ngi tëdd ci lalu hôpital mënatuñu wër kon tey jii suñ ñëwee prison ah je pense que sac la mu doon ay kàddu yoo xamante ne sont très motivants parce que je ma disais déjà avec sama état de santé comment ma débrouiller mais en toute sincérité mosuma seytaan te su nekkoon ne ci man rek la yem wax dëgg fa yàlla sax dinaa ne ah man de Babacar daf maa choisir mais Babacar amul xaaj ak seen amul ki mu xam tey amul ku mu xam démb amul ku mu xam barki démb mais au contraire lan moo la fi indi manifestation ah dalay taxawu ba yow mi sa jëmmi bopp da ngay sax mujjee ruus di wax na ñun de détenu yu nekkoon Cap Manuel amaana amaguñu mënaguñu wax pour ci ñenn ñi mooy ñu mu tudd mooy mag yu baax ñu mu tudd sànq muy Bassirou Diomaye muy euh, professeur Cheikh Omar Diagne mais aussi muy suñu président Ousmane Sonko parce que moom tamit kenn damul ma des ah man de ci sama témoignage ci li ma fekkee ak loo xamante ne jaar na ci man Babacar comme nu mu ko waxee tout à l'heure parce que moom moom day tete rek nu koo jomaay woowe na ko Babacar disturbeel ma lii à chaque fois je vous dis ah day naan Vito defaral ñu liste soo defaree liste mu ne léegi ñii on doit aller faire des bons boutiques parce que foofu amul joxe xaalis boutique moom moo fa am te daanaka nombre bu nekk ci biir prison bi ay patriotes képp ku ci nekk Babacar dina vérifier ñu organiser wu tappale affaire bi ba mu mat sëkk mu ne léegi dem leen ngeen séddoo te dafa jub torop nag jub na gore na te bëgg na ay mbokkam surtout waa département pikin bu mu nekkee grand ñun de comme on te disait souvent amuñu luñ lay fayee c'est vrai ñu nag suñu yeneen mag ñoo fa nekkoon waaye yow it en tout cas fayiroo sa mission mooy ba nga doon def ci biti am engagement lool en tant que jeune ñu topp sa ginnaaw di xeex ba tey jii ñu nekk ci kaso bi no grand fayiroo sa mission Babacar nekk na nit koo xamante ne oyof na humble na humble boo xamante ne laa la wax de s'il marche dans la prison wallahi azim laa la wax de ay gëstu nga fii non non oyof ku ko interpellé nag wallahi azim mu taxaw muy patriote wala ñàkk nekk patriote ma jox leen benn benn anecdote anecdote bu ndaw am na benn booy boo xam ne dafa nekkoon ci prison bi léegi booy bi bu mu nekkee ci prison bi amul moyen su ñëwee booy bi du patriote dañ koo tëj noonu rek booy bi su ñëwee day jëw DPS mooy secteur bu ñu nekkoon mais wallaay azim laa la wax de Babacar saa yu lekkee wala mu yor benn astuut dina ko boo xamal booy bi jox ko mu ne am damal nga lekk te xamu ko fenn wallahi azim te xam naa ne du ñun ñooñu ñooñu rek la ko defar parce que un jour je parlais am na ay mineurs yi nekk foofu un jour maa ngi doon waxtaan ak ay mineurs yi ñu ne ma tonton Vito doo ñu fayal suñu canal ma ne ko ah kanaal bi ñaata la ñu ne ma cinq 5000 bu ma nee cinq 5000 la ma ne ko kan moo leen doon fayal ñu ne ñun de tonton Babacar moo ñu doon fayal depuis bu mu fi nekkee ba tey mais instant bi dañoo dem ba rus dañoo dem ba rus. dañoo dem ba mënuñoo wax lépp nag parce que lu mu jëflanteeg ñun ci lu baax ci lu rafet ci wàllu assistance vraiment ñun suñ ko toogoon fii di ko lim wax dëgg fa yàlla du jeex parce que taxaw nañu de Babacar Ndiaye taxawoon nañu détoo détenu yi bu baax a baax jàppale na leen dimbali na leen te mosul bëgg benn détenu su siiw sur quoi que ce soit en tout cas mënuñoo wax lépp dañu doon ñëw rek en tant que ñu mu loon waa Cap Manuel di témoigner lu mu nekkee woon foofu muy dox jàmm waxtaane xam-xam ak dimbali nit boo xamante ne moom la fa nekkee woon ma ñàkk ñu wax ko tey et on est très fier d'en parler parce que c'est des faits te xam naa ne Pikine seen doom bi ku ko jàpp jàppale ko di ngeen jàppale gor di ngeen jàppale ku bëgg seen gox mais di ngeen jàppale aussi ku bëgg Sénégal ku bëgg Ousmane Sonko ku bëgg président Diomaye mais ku bëgg le projet merci beaucoup. le mot de fin en wolof kenn moo koy joxe mooy sunu euh, kilifa Moustapha Sarré euh, moom mi nga xam ne mooy coordonnateur Mbao bu paree mais attendez mais mais mais non s'il vous mais s'il il faut qu'on termine aussi. parce que ñoo ko ko invité suñu conférence de presse quand même mm, euh, format bi dama ne dama ne on va donner la parole à Moustapha Sarré pour clôturer après les ITV Babacar dina wàcc ngeen jël ko ça vous pouvez nous le permettre parce que voilà c'est notre euh, responsable au niveau national mooy coordinateur de Mbao et aussi ñi tax jël ci xam-xamam tuuti parce que nag mooy suñu directeur école parti Moustapha Merci beaucoup, Habib. Ne vous en faites pas, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Parce que je crois que le frère Cheikh Alioubey, qui a parlé précédemment, a excellemment présenté le frère Babacar Ndiaye ici présent. Lui-même, il a fait un exposé exceptionnel devant le parterre de journalistes que vous constituez. que je voudrais remercier pour votre présence à cette journée exceptionnelle. Pas seulement exceptionnelle parce que nous célébrons la femme africaine, mais exceptionnelle parce que nous avons un digne fils du Sénégal qui s'adresse à son peuple. Après avoir enduré autant de temps en prison, simplement pour avoir donné son opinion cet homme qui s'est adressé tout de suite, qui va encore s'adresser au peuple sénégalais, est un homme d'une dimension exceptionnelle. Pouvait-il en être autrement Je ne le crois pas. En tout cas, nous qui le connaissons, nous qui avons vécu avec lui pendant toutes ces dernières années dans la section communale de Mbao et dans le bureau politique national de PASTEF, nous savons qu'il ne pouvait pas en être autrement. Nous le connaissons parce que nous avons vécu avec sa maman, nous avons vécu avec son père, nous avons discuté avec son père. Nous savons qu'il a été éduqué non seulement dans la politesse, mais également dans la, dans la, dans l'engagement et le patriotisme. Pour ceux qui ne le connaissent pas, son père a servi ce pays jusqu'à arriver à l'âge de la retraite aux côtés des forces de défense et de sécurité. C'est ce, ce père-là qui lui a donné l'autorisation de s'engager et de lui demander de ne jamais reculer devant la peur. Babacar n'a jamais reculé devant la peur. Babacar est un homme qui nous a toujours servi d'exemple, nous autres. Je suis beaucoup plus âgé que lui, mais je n'ai jamais arrêté de me référer à son comportement parce qu'il a toujours été exemplaire. Cette année de résilience l'a suffisamment montré. Pendant un an, Babacar a vécu en prison. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui ne le savent pas, quelques semaines seulement après s'être marié. Il a été arrêté. même personnellement, j'avais des problèmes. Je me disais certainement qu'il allait craquer un Parce que un jeune de son âge, quelques semaines son mariage, qui est arrêté, risquait à 80% de craquer. Mais j'avais ignoré effectivement que cet homme que j'ai pratiqué pendant plusieurs un homme exceptionnel, est porte son pays dans son cœur et pour qui il est en tout cas un homme qui est prêt au sacrifice suprême pour défendre son pays. Je crois que, chers journaliste vous avez dû remarquer une chose, c'est que quand il parle de son pays, il le dit avec le ton qui s'y est. Il le dit avec l'engagement qui s'y est, cet homme-là ne pouvait pas faire autre chose que ce qu'on vient de décrire, que les autres détenus politiques ont décrit ici. Je, je, je, pense déjà à euh, l'intervention de Vito et de notre frère qui est là derrière. Babacar, le Sénégal a bien besoin de toi. Le Sénégal profitera justement de tes qualités au lendemain du 30 du 31 du 24 mars 2024 puisqu'au soir de, ce, de cette journée quand on aura fini d'élire le président Diomaye forcément tu joueras l'un des rôles les plus importants puisque tu appartiens à la frange la plus importante auquel justement nous faisons confiance je parle de la jeunesse 75 pour cent de cette à moins de 35 ans. Babacar toujours a ce rôle-là devant cette jeunesse, avec cette avec le peuple sénégalais, pour refonder notre République, parce que tout ce dont nous avons besoin, c'est de refonder cette République. Quand cette République sera refondée, Inch'Allah, les solutions tomberont, parce que nous avons un pays magnifique, un une population exceptionnelle, mais un pays qui a également des ressources incommensurables Et quand on aura fini de refonder cette République, le président Diomaye mettra ce pays sur des rails et nous le changerons inéluctablement et les Sénégalais verront qu'il était très facile, qu'il est très facile de changer ce pays-là. Sur ce, je voudrais remercier tous les autres qui sont là, en commençant par le doyen Tché Fatim Naël qui est là, nous accompagne par euh, son expérience justement et par son engagement. Je voudrais également remercier toute la section communale de Mbao qui s'est battue comme un seul homme pour faire sortir Babacar Ndiaye. Et je ne terminerai pas sans remercier la coordination départementale de Pikine avec notamment son coordinateur, le frère Cheikh Aliou Bey qui vient de nous quitter, mais également cet homme que je considère certainement comme la cheville ouvrière de Pikine, qui est Habib Faye, et tous les autres qui sont sur la table. Je vous remercie et je vous dis simplement, pour que ce change et il changera, Inch'Allah, au soir du 24 mars. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, euh, merci, chers la presse. Donc, l'autre partie qui sera euh, faite sous format des Donc, Babacar, euh, le public, merci beaucoup. beneen pàcc bi ay on n'a pas besoin de ça seen seen micro ngeen di